Ndiaye géwél ban buum ban buum nga ma bëgg a jox. waaw laaj ko bu baax. dañ loo soxla ci kanam. Ngoone Ndiaye géwél ban buum la ma bëgg a jox waa kay maa ngi koy woo nii. buumu dee gi wala buumu ah, buumu tàgge gi wala buumu bu buumu allo. waaw waaw Sala Biége Ndiaye ak Gambeen nag Birame Penda Ndiaye ak Gambeen damaa bëgg lépp leer ban buum nga ma bëgg a jox buumu tàggee gi wala buumu buumu buumu buumu gi. kër gi rek jàll. ok ok loolu rek laa bëggoon xam jaay maa ngi lay woo léegi ñu waxtaan tey la alxames. ñun de mbay ñoo say mbokk. waaw daf maa def daf maa def. dama koy dëb. lu tax lu tax nga bëgg maa jox buum bi. lan moo tax nga yéene ma buum gi Ngoné Ndiaye géwél. dara xool sa jukko rek mu doy ma. da ngaa xool sama juddu rek mu doy la. ak sa jukko. sama jukko doy na la. da ngay waxtaan ak gar rek. ak sama lan sama lépp doy na la mbay. eh loolu lépp waxuñu ko. <laughs> ñu ngi bëgg bu baax. et eh, ngoone ah dafa xool daal sama lépp doy ko rek bëgg maa jox buum <laughs> merci fii la ñuy jeexalee partie bi ma je retrouve dans quelques minutes pour supplément yeewu leen